Mhm. fekk naa fa trois booy. pour mhm. ñu jox ñu ne booy bi dama gën a gis te leer na ma ne ñooñu samay naataangoo la. waaw ah, mais uh-huh. caat a jox. caat bu faas waaw. caat bu faas lan ma njëkk dox mu ñëw ne ma pare nga ma ne ko waaw. Uh-huh. mu ñëw ne ma mbër pare nga ma ne ko loolu moom du sa liggéey man du ma doo uh-huh. ñu dem une semaine lañ ci teg. ñu ne ma combat après ci lan ma waat woo sama grand bi Arona Faye ñu taalaat moto dem. après ci lan dem. ne am na ku lay jox bi ma ne kan la ñu ne ma booy jobaas. Mhm. boobu père Sowru la. Mhm. xaw ma ko. baax sama li suñuy licence moo ko da ko doon jëlee CNG. Mhm. di ko yóbbu Igri moo jël combat bi. jox ma booy jobaas. xaw ma boobu booy jobaas ñëw tamit xam nga. ñemee ko ko ba ne leen waaw. parce que góor la may góor. du ma delloo avance bu jaam rek day am. jaar boobu du delloo avance. parce que jàpp naa ni ñi ma doon bëreel. bu dee bëre mën nañ ko te dama leen doon jàpp leen daal bu dee doole am nañ ko te dama leen doon jàpp leen daal mhm. après ci laa jël combat bi suuru combat ma ñëw mhm. tamit mhm. waaw at bi suule ma def yëfi góor aj sama garde tox ci kaw dóor góos mu dóor rimis ma génne ñu daw daje mu daw faxas bi daa xam bi may def rétention pour mboot après ci la ma yellu bi daw sànni ma sama fees laal fees bi laal waaw arbitre arbitre jox victoire. arbitre jox ko victoire ma mer arbitre c'est terrain. c'est le non loolu qui, ci loolu mom qui ci. do ci discuter duma ci discuter. mais est-ce que xam nga instant bi nak chat qu'on se dise la vérité li gars jot jot na ba jot jot na de. Ils quoi. wa jël li nga mom wala wala waaw wala wala. par force. parce que tamit tu wax deug yalla ku ralentir toogaat deux ans bëreewoo ñaari at nga toog bëreewoo hmm. n'est-ce pas ñaari at waaw ñaari at toog bëreewoo ñaari at yi da nga doon defaruwaat wala da nga bàyyi woon làmb wala da nga découragé woon wala lu mu dem làmb du ma ko bàyyi ñaari at yi la woon du ma bàyyi làmb parce que man dem naa ba gisatu jaatuwaala jamono bi muy bëree ak booy Dakar hmm. boobu ñu ngi àll jaatuwaala man mii jaatuwaala booy jëri waalo waaw boobu ñu àll bi ñun di ko jëlee dama ne ko caat mu ne ah, ma ne ko noonu dem Dakar nga defar bi parce que yaa ngi bëri ku mën a bëri mu ne ma fii su ma naa mën combat bi du combat. Mhm. mu ne la du combat. parce que poids loolu laay bëri fii di ko jëm. boo dagaa di bëri fii lese. ma ne ko laa mujj loolu nan dem. bu dee bëri rek man nga ko. Mhm. bu dee doole am nga ko bu dee fit mhm. macha allah am nga ko. mais tamit combat boobu xam naa ne caat tegu ko foon fenn boo gisee ni bëri ci biir géew rek. nga xam ne tegu ko

bu la doon combat suba. pare nga pare na. pour le retour de Thiatou Baol. retour. Mhm. di ngeen gis lu yéeme. <laughs> ah waxal waay waxal kaay ñu dégg. barki Seydina Mohamed samay supporters bu ma leen ko waxee sax ñoom dinañ ko gëm. retour danañ gis lu yéeme. moom bu ñoom bu ma leen wax ne retour dinañ gis lu yéeme. Mhm. ñoom dinañ ko xam. te ñu duñ jël sax combat di toog fii Dakar fii pour entraîner. Mhm. dañuy jaral barki Seydina Mohamed. ñu génn. xam nga fu muy doon nag meeru fii dañ koy taxaw préparé ko dañuy génn. dem liggéey lu métti ñëw toog. ñëw imposé. bu nu gisee dinañ xam ne carrément kii làmb jaral na pare pour jëlaat sa place. noonu la dem par la suite dama naan euh, bi nga dalee seetaan làmb ba tey ji ma wax ak ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog tele bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte combat bi la gën a marqué ci làmb ban combat la. bi ma gën a marqué ci làmb. Ah. ma dem stade seetaan ko nga dem stade seetaan nga toog jàkkaarloog télé bi seetaan ko mais mu marqué la bu mënoo ko fàtte mu marqué ma ah. xam ne xam uh-huh. parce que boobu moo a bëri def na waaw mm-hmm. mm-hmm. moo la gën a marqué ci làmb waaw parce que xam nga lan moo tax mu marqué ma mm-hmm. dafa ñëw gémb bool gépp ñëw toog si ginnaaw. mu nekk lu métti loo xam ne première fois nga dem di bëri ji nekk xale. ñu uh-huh. ñëw ñaax ko ànd ak moom. mu liggéey macha allah. moo ko mm-hmm. gis xam ne kii liggéey mu dem xam nga am defet te nitu pour mu siggi xool nit sax. dafa jafe mooy loolu. Mm-hmm. mu leer ma ne jour ba am na lu ko metti parce que bu xëyee nan lay gise waa koñam loolu daf may marqué. maa laa jaa tontu on avance. Euh, rakk ji. yow sa wal bop bi nga dalay beure ba tay ji may yow ban victoire mo la gëna neex ci sa carrière mbapat ba arène mbapat ba arène waaw euh, sama victoire bokku na ci bi mo beure ba may bo mo lay wax noonu maag caatu ngoy ya ciatu ngoy waaw mo la gëna neex sa carrière waaw parce que xamal lan mo tax mu neex da way ñew def bet zone douze mhm. waaw drapeau Sénégal waaw couleur nationale aha bi rafet aha ma ñew and ak sama boy xam nga ñew ay bay baal lu baay su ma dee dee sax dañ fay des barki Seydina Mohamed uh-huh. ñu ñëw xam nga mu ñëw tuus lu neex uh-huh. andi mbooloo ma ni mbooloo at bi suufle pare nga ma ne ko waaw mu pare nga ma ne ko waaw uh-huh. mu ne ko pare nga mu ne waaw génn suñu diggante comme noonu rek def samay limaa ne samay supporter jóg leen may dégg ci kaw ñu naan dalal dalal parce que booy bi boobu mu nga doole jaadu koy dafa mën a bëre ma daaxu gauche droite gauche kàng mm-hmm. dóor droite mu ribis ma mm-hmm. sama bët yi génn ételsé mais xamu ko mm-hmm. dama daw yor rek ñam tànk bi rek mu daw génn <laughs> ma ne voilà foofu baax na uh-huh. bi suule mu defee ne damay taxaw ma yóotuwaat dooraat gos mu ribisaat ma rek daw jël sama tànk bi te xamul ne tànk laay bëri daw yeew ma takk mu takk la waaw daw daa xam ma def rétention dama def rétention arrêt arrêt xam nga damay bu may ñëw moom day ñëw moo may gën a jege. après ci laa gër sama tànk rek kàl ko. kàl ko dama kar rek yëkkati. barke alxuraan jënd bu rëy. yëkkati dooti suuf. billaahi wallaahi tallaahi coow li jëm. moom la gën a neex sa carrière. moom moo ma gën a neex boo kenn deelam mbir ki laan bëri na dama naan aussi bi nga dalee bëree ba tey mbapat ba arène ban défaite moo la gën a ci sa carrière. may bëre arène ba léegi moom combat bi ma bin ma daane bool moom. Hmm. moom moo gën a metti sama. diggante kan mooy kooku ma lay wax waaye li may fàtt turu turu rab kii sax la rab yi. kan la fii la dëkk tali bees fii. ban la nekk. non moom nekkut nekkut ci benn écurie la. waaw mais dañoo bëri bool. bee mhm. boo sax ma ne bëri naa ko. Mhm. bëri naa ko drapeau. Mhm. bëri na ko moom Abdou Ndera. mu bëri ko drapeau. dañu combat bi jël ko. waaw wala gën a sa carrière wantal combat bi mm-hmm. parce que boob booy bi am na tur fu mu bëri day jàpp daan mm-hmm. kooku kenn weranteew mm-hmm. xam nga ma ñëw combat bi jour ma def yëf yi gone nelaw après ci la ma daane xam nga sama gars yi xam nga rek mooy loolu xam na ne booy bi ndaanaan la bët seet sama kër xam nga ñëw booy ñëw sama dund gaale ma am kersa trop sigi sax xool nit ñi barke Seydina Mohamed. mu doon defet bu la métti. mu doon defet bu mu métti trop trop. trop trop trop c'est la vie c'est la vie c'est la vie. billaay euh, on avance rek xam naa damay xaw a génn tuuti ci làmb yi ñëw ci sa vie privée da ngay seetaan football. football waaw. Mm, ban équipe mooy sa équipe. Real mooy sama équipe. Real Madrid. waaw mais instant yii mooy sama équipe. waaw Chris nga ma limal 5 joueurs yu mës a jaar Real Madrid. 5 euh, joueurs. yu mës a jaar waaw mës nañu sol maillot Real. non. xanaa kii daal laa fa mën a jàpp. parce que moo fa nekkoon sama sœur Chris. Cristiano Ronaldo waaw ah, Chris mu doon. li mu nekkoon Real. kon daal benn instant su la ne kan mooy. moom laa ko Ronaldo li ma woy chiffre bëriwul. Cristiano Ronaldo moo la intéressé moom laa fa doon chiffre ba mu fa jógee ba léegi. léegi mi ngi kon kay léegi sa équipe kon. moom laa maa laa jaa tontu mooy sa waykat Sénégal fii kuy way nga kontaan sama waykat. waaw ah. Ndongo Lo. Ndongo Lo muy décédé depuis 15 ans. décédé. fii ay son bu ma ba léegi. parce que xam nga lan la. Mhm. lépp lu mu moo leer.